7h30 dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans Sud Matin. Voici les titres. Débat autour du troisième mandat, tir groupé contre le régime en place, le maire de Grand-Yoff, Madiop Diop, parle de tentative de diversion, un contre-feu allumé par le pouvoir pour faire oublier le rapport de la Cour des comptes et les révélations du livre de Pape Alé Niang. Un débat inacceptable, ignoble, soulevé par les responsables de l'Alliance pour la République, Martel Thierno Bokoum, le leader du mouvement Agir. Cette question du troisième mandat s'est invitée hier

national des corps gras dénonce les autorisations d'exportation de graines délivrées par le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, un acte de sabotage visant à fragiliser la Sonacos, martèle-t-il. Thierno Mbaye Ndiaye a écouté dans nos différentes éditions d'information sur l'international Guinée. Le double scrutin et reporté, a annoncé le président Alpha Condé. Euh, football Liga 26e journée, Real Barça Euh, classico décisif. Le match est prévu euh, dimanche. La mise en ordre de cette édition d'information est assurée par euh, Pape Abdoulaye Dieng salaamaaleykum Adama Dione. waaleykum salaam Babacar Pape Laye fare ci sottandikukaay bi doore nag xibaar yi ak coowal ñetteelu mandat ak kàddu yu yëkkatikandoo jëm nag ci régime bi fii nekk maire bu Grand Yoff Madiop Diop la mu daal di gis mooy mbir mi daal bëgg rek détourner lii di attention askan wi la ndax nag yenn ci ay yeneen xew yi ci mel rapport bu cour des comptes ak révélation yi nga xam ne taskatu xibaar bi di Pape Alé Niang def na ko ci euh, nguur gi la ñu bëgg rek fay moo waral li ni mel bile débat nag la mu jàpp mooy euh, xel euh, nangu ko te responsable yi après daanaka dañ ko daal di nag jiital loolu la kii di Thierno Bocoum daal di nag xam le leader bu mouvement Agir bokkoon nag ci marche buy démb la ñu daal nag gis mooy ñetteelu mandat googule sax fës na ci ñooñu doon rek Euh, manifester waa ñoo lànk ngir daal di nag sàkku wàllu courant bi ñu daal di koy nag wàññi waaye itam lu aju ci Guy Marius Sagna ñu daal di koy nag bàyyi marché bi sax foofu la tere ca Liberté 6 euh, njiitu réew mi daal di nag euh, jot rapport 2017 2018 bu OFNAC ñaar fukk ak ñett ci ay dossiers yi nga xam ne daan nañ koy càmbar juróomi rapport enquête sensibilisation bi ak fexe nag ba daal di nag jébbal xabaar ña co yeeyoo moom la ñu gën nag jiital jiital nag ci rapport boobu ay recommandation def nañu ko euh, nga xam ne nag dafay tax lépp lu aji ci rapport bi ñu daal di koy càmbar bu baax laata ñu ci jël nag lii di dogal xibaaru bitim réew Guinée Conakry foofee nag dañoo daldi di nag dàqandi eh, lii di nag scrutin bu ñu bëggoon rek amal bu ñu couplé eh, président ba ko wax daal di nag eh, xamle ci xibaar yi dinañ ci jukki wàllu tàggat yaram itam dinañ aju ci classico bi daal di nag am diggante Barça ak Real ci dimanche ki ak wàccaa ca daal di am dafa dugg nag ci cadre vingt sixième journée bu championnat ba. Le journal. 6h45 dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans Sud Matin, première édition. Voici Débat autour du troisième mandat, tir groupé contre le régime en place. Le maire de Grand-Yoff, Madiop Diop, parle de tentative de diversion, un contre-feu allumé par le pouvoir pour faire oublier le rapport de la Cour des comptes et les révélations du livre de Pape Alignan. Un débat inacceptable, ignoble, soulevé par les responsables de l'APR Martel. Thierno Bokoum, le leader du mouvement Agir, cette question du troisième mandat s'est évitée hier de protestation organisation du collectif citoyen ñoo la foire au rond euh, de Liberté 6. Le chef de l'État a les rapports 2017-2018 de l'OFNAC. 23 dossiers ont été examinés pour 5 rapports d'enquête. La sensibilisation et l'information privilégiée des recommandations ont été faites, des recommandations justement qui feront l'objet de traitements très attentifs selon le président Macky Sall, sa réaction à suivre dans cette édition d'information. secrétaire général national adjoint du syndicat national des corps gras, dénonce les autorisations d'exportation de graines délivrées par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, un acte de sabotage visant à fragiliser la Sonacos, martèle-t-il. Thiembey Ndiaye, sa réaction, c'est dans ce journal. Sur l'international en Guinée, le double scrutin est reporté, euh, annonce le président Alpha Condé, Liga 26e journée, Real Barça classe classico décisif. Le match est prévu euh, dimanche. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est après ceci. Sud Matin. qui vous dit bonjour Le débat sur le troisième mandat est une tentative de diversion, un contre-feu allumé par le régime en place pour faire oublier le rapport de la Cour des comptes et les révélations du livre de Pape Alignan. Ces mots sont de Madiop Diop, maire de Grand Yoff, qui souligne euh, ce fait et indique que les khalifistes sont toujours solidaires à Guy Marius Sagna et au combat du peuple. Voici micro de Amadou Moustapha Dia. pour la libération de Guy Marius Sagna. voilà. mm alors et aussi pour aussi qui parle de Guy Marius parle de ce Guy Marius a dit le courant est trop cher. Mhm. actuellement il est en prison. mais ce qui est pur il, était en prison avec d'autres gens. mais les autres pour lui, lui, lui, lui faire rester tout en prison. Ce n'est pas normal. Notre débat est soulevé actuellement, le troisième mandat. Non, c'est pour divertir les Sénégalais. Le vrai débat actuellement, c'est le rapport de la Cour des comptes. Parlons de ça. Beaucoup de khalifistes dans la marche. C'est tout à fait normal. Pourquoi On est là parce que on, demande à, à Mexal de respecter les droits de, des hommes. Une question. C'est lui, le, c'est lui, c'est garant de notre constitution. Il doit protéger, protéger tous les pour nous dire ça. C'est normal. On doit décentraliser les actions. C'est comme ça. Il faut aller dans toutes les communes de Dakar et même dans les communes qui, sont, au fin fond même du Sénégal. La mobilisation, elle est réussie selon vous Oui, oui, oui, en la mobilisation. Kerno Bokoum, leader du mouvement Agir, dicte euh, ceux qui se battent aujourd'hui euh, pour l'intérêt du Sénégal ne sont pas à l'abri d'une injustice. Il s'est également prononcé sur le débat du troisième mandat soulevé par les responsables de l'Alliance pour la République. Il estime que c'est inacceptable et ignoble. Voici Kerno Bokoum micro de Amadou Moustapha Dian. pour réclamer la même chose, parce que c'est une question de principe. Il ne faut pas voir Guy Marissagna, il faut voir chacun d'entre nous, parce que Guy Marissagna s'est battu pour le Sénégal. Ceux qui se battent aujourd'hui pour le Sénégal ne sont pas à l'abri d'une injustice, qu'ils s'appellent Guy ou Matar ou Modou. C'est un débat honteux. J'ai honte quand j'ai vu certains hauts responsables de l'APR nous invoquer ou évoquer des questions liées à l'article 27 ou nous de la Constitution ou encore nous parler de doctrine. C'est honteux parce que ce sont les mêmes arguments que, nous contre le troisième mandat du président Ablaï Wade. Mais nous nous sommes battus tous avec eux, ils étaient là. Nous nous sommes battus pour que de, de telles choses ne puissent plus se reproduire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Ce sont les délices du pouvoir qui les poussent à avoir un autre comportement. C'est inacceptable. C'est pourquoi nous avons dit très clairement, nous n'accepterons pas un projet pareil, que ça soit porté par le président de la quelle la personne qui portera ce projet, nous disons très clairement que nous nous opposerons farouchement à ce projet. C'est inacceptable qu'on puisse revenir à ces acquis démocratiques. la question du troisième mandat qui s'est invité à la marche du collectif Langue du rond-point de la euh, de l'échangeur de la foire euh, au rond-point de Liberté 6 avec comme point d'orgue le concert de clichés et de klaxons devant la prison du camp pénale pour demander la libération de Guy Marius Sagna. Les organisateurs lancent encore une fois un appel au pouvoir euh, car selon eux, ils ne pourront pas continuer euh, donc euh, tout le temps cette foule. Le débat sur le troisième mandat, je vous le disais, c'est également invité à la marche. Amadou Moustapha Diagne. Guy Marius Sagna, du fond de sa cellule de camp pénal, aura certainement entendu ce concert de cris, de klaxons et de sons, tout azimut devant le portail de la prison réclamant sa libération. Kimari. libéré Kimari. jërëjëf Kimari jërëjëf. Cette démonstration de force de Noo Lank fut le temps fort de cette marche des manifestants surexcités qui ont parfois même toisé les forces de l'ordre devant les barrières installées devant la prison.

ci kanam Diagne propose que tous les manifestants ramènent dès demain des repas à Guy Marius Sagna bu ancien co de Guy Marius Sagna continue encore une fois de réclamer sa libération les larmes du père de Guy Marius Sagna constituent un avertissement solennel pour notre pays car les larmes des humiliés constitue une maladie plus grave que l'épidémie du coronavirus. Le débat sur le troisième mandat s'est également invité à cette marche et les manifestants disent clairement. troisième mandat xam nga fi suñu une marche qui a été encadrée du début à la fin par les forces de l'ordre avec un imposant dispositif sécuritaire devant la prison de Camp où séjourne Guy Amadou Moustapha Dian, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, s'est également prononcé euh, sur cette question. Le moment opportun n'est pas encore venu pour se prononcer euh, sur la question, excusez de la répétition. Mansour Faye était à Prohan pour procéder à la mise en marche du sixième forage. Il est au micro de Momoudou Kamara. Mais Vous savez, nous, ce qui nous intéresse, honnêtement, c'est d'apporter des solutions par rapport aux préoccupations des populations. Le président Macky vient de boucler sa première année. Il nous reste encore, par rapport à ce mandat, quatre autres années. Nous travaillons vraiment dans cette dynamique-là. La question des mandats n'est pas une question d'actualité. Au moment opportun, certainement, nous allons en parler. Sud FM, l'info, c'est ici.

Au terme de leur examen par l'Assemblée des membres, cinq rapports d'enquête ont été transmis au procureur de la République. Fort heureusement, Monsieur le Président de la République, engagement résolu à combattre ces fléaux et pour nous une source d'encouragement qui entretient en chacun de nous l'espoir de voir notre vie se libérer entièrement des entraves de la corruption. Les recommandations contenues dans les rapports d'activité feront l'objet d'un traitement très attentif euh, de la part du gouvernement, a dit en tout cas le chef de l'État Macky Sall, toujours au micro de nos confrères de la RTS. Depuis que je vous ai confié cette noble mission, j'ai le plaisir de constater que tous les actes que vous posez sont balisés par ces exigences et par la volonté d'inscrire les actions de l'OFNA dans une trajectoire des règles qui gouvernent l'exercice d'une mission aussi délicate. Il me plaît de relever dans le cadre de votre stratégie de prévention l'intensification et la multiplication des activités de mobilisation sociale et de sensibilisation auprès des populations et des agents publics concernés par la déclaration du patrimoine. Pour aboutir au résultat que vous avez consigné dans les deux rapports, vous et vos collègues et collaborateurs avait dû faire montre au quotidien d'engagement et de dépassement dans le traitement des dossiers les plus complexes. Fort heureusement, vous avez bien compris que votre mission relève du sacerdoce. C'est pourquoi je vous exhorte à persévérer dans cette voie, certes difficile, moins communicante, mais exaltante. Les recommandations formulées dont les deux rapports d'activité feront l'objet d'un traitement très attentif de la part du gouvernement. J'y veillerai personnellement. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé euh, ce vendredi, euh, vendredi soir, hein, qu'on a écrit le rapport Le report de deux euh, semaines des élections législatives et du référendum sur la nouvelle constitution initialement prévue ce dimanche 1er mars.

sans faire de victimes. Les États-Unis ont reporté Synergy, un sommet avec l'Association des Nations euh, d'Asie du Sud-Est euh, qui euh, devait se tenir en mars à Las Vegas à cause des craintes liées à l'épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé en tout cas vendredi un responsable américain. C'était l'essentiel de l'actualité. À partir de cette heure, vous aurez euh, Adama Ndione pour le journal wolof d'ici là portez-vous bien. salaamaaleykum mbokk yi jërë ngeen jëf ci fasante kóllëre gi wuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan. sept heures bisimila ci xibaar Adama Ndione eh, doore ko ak débat bi aju ci ñetteelu nag eh, mandat bi ay kàddu yu bëri daal di ci nag rot di cong nag régime bi eh, ci mébét boobu ñu ne daal moom la daal di amee mbir moomee nag bokk na ci wàllu tentative diversion fexe daal ba daal di ëlbati xelu xalaatu askan wi maire bu Grand Yoff moom la daal di jàngate mbir mi ndax rapport bu Cour des comptes bi daal di nag wadd ak yenn ci ay xeetu mbuut yu livre boobu Pape Alé bind daal di bokk na ci li waral ci e, jukki li ni e, mel débat boobu sax daanaka ci e, ndaje bi ñu amal ni kiy démb foofe ca liberté si jàpp camp pénal waa ñoo lànk daal nañ koy rek jukki addu jëme ci ne nag dinañu fexe taxaw ngir daal di baare yoon bi nguur gi mu daal di jëfee li ni mel njiit réew mi daal di nag jot rapport 2017 2018 bu OFNAC ak juróom ak ñaar fukk ak ñett ci ay dossier yi nga xam ne nag daal nañ koy rek examiner juróomi juróomi rapport enquête yoo xam ne itam bëgg nañu ñu daal di sensibiliser secteur yi nga xam ne ca la daal di nag aju yenn ci ay digle itam daal na ci rek fas njiitu réew mi jàpp ne la ca war nañ ko daal di nag def nañ ci jukki nañu àddu itam jëmee nag ci syndicat national yu corps gras ñoom ñi daal di nag ñaawlu yenn ci ay xeetu nag joxe digal aju nag ci wàllu nag jiw ji nga xam ne nag directeur cabinet ministre agriculture daal na koy rek xam ne jàpp nañ ne li ni mel dafay saboter seen kër googu di ci tàggat yaram ak classico bi ñuy waajal ci weekend bi diggante nag Real ak euh, Barça euh, dinañ ci jukki toftal ci yeneen xibaar laata revue de presse beeg Adja Xabsa Iliman Wan Papa Abdoulaye Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàccee Guinness gis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi coowal ñetteelu mandat mbir moomu daal lañ ko jàppee mooy fexe ba askan wi daal di fàtte yenn ci ay mbir yi daal di am yu ci mel ni rapport euh, bu Cour de comptes bi daal di nag joxar bi ñenn ñi nga xam ne nag ay responsable lañu ci nguur gi waaye itam livre bi nga xam ne moom la taskatu xibaar bi Pape Alé Niang daal di binde ak mbuute ca laxasu ma jópp jóp maire bu Grand Yoff jàngat boobu daal la ci daal di nag am moom mi daal di xam ne ne ñi ànd la gën a taxaw ngir daal di jàppale Guy Marius Sagna maire Madiop Diop ñu déglu ko ak euh, Amadou Moustapha Dia. waaw ah, maa ngi ndax ngay marché. ah ànd ak gars rek bu ñu pour demande ñu bàyyi Guy Marius Sagna. ah, ah a bàyyi. maanaam hmm. du kaso. de ah. ñu wax numéro bi. waaw mais ku wax Guy Marius Sagna rek wax chef courant. moo ñu moo ñu jàpp ko. Hmm. am na beneen débat bu jub troisième mandat. waaw ba pare ay coow. waaw Macky Sall yow. mais Macky Sall est très malin ah. Macky Sall léegi divertir na Sénégal yi orange si beneen débat. Ah. débat bi dëgg xam mooy lan. Cour des comptes daa génne rapport. da si wax mais ñun dañoo teel a yóbbu dañoo dañoo dañuy teel a këf quoi. Hmm. mais comme xam nañu Cour des comptes ay gars yu ko seen ba mu génnee affaire troisième mandat pour waaw diversion la pour gars yi pour gars yi mais mais dafa yomb quoi dafa yomb. aussi gis nañ aussi ay xalifa ay gars xalifa yu bëri anti ah. ah. loo xam ne dafay xañ nit ak xam ak yelleefam ñu ngi koy xeex. ñu daal di nag desandi ba tey ak coowal mandat googule Thierno Bocoum leader bu mouvement Agir teewoon ko ne daal dinañu daal di nag xeex tey jile ndax nag képp koo xam ne yaa ngi xeex injustice daanaka ñu teg la ko weesuwul moom itam wax na ci wàllu mandat googu nga xam ne moom la ñuy rumandaat ci responsable APR yi lii la ci wax moom Thierno Bocoum ñu déglu ko ko Amadou Moustapha Dia. bugg a yokk électricité bi yaakaaruñu woon loolu si président Macky dañuy féliciter jeunesse sénégalaise dañuy féliciter ñëpp loo xam ne ñëw nañ taxaw fii parce que noonu la ñuy xeexee ci réew. acquis démocratique boo mënti gis ci réew bu mënti doon dafa am ñu jug ñuy wax naan toog leen waaye bu leen def lii bu leen def leen loolu indiwul benn acquis démocratique dañuy tenté di abuser ci pouvoir yi. nii rek la mën a demee pour que ñu bàyyi gars yi. justement ci wàllu second mandat Macky bi mais dafa mel ni ne débat bi dafa relancé jamono ji ak ay euh, responsable nekk ci mouvement présidentiel bi pour que ne Macky Sall war naa mën a def troisième mandat. waaw loolu débat bu ñaaw la bu ruslu la bu ñaaw la bu ruslu la bu ruslu la man dama dama am gàcce parce que nekk fii di leem leemal naan ay constitution. ay article vingt sept mais loolu yëpp waxoon nañ ko fi en deux mille onze mais ñan ñoo fi nekkoon di xeex deux mille onze ñoom si lañ bokkoon waxu rek président Macky Sall mais ñu fi nekk di wax rek ñëpp bokkoon nañu si combat bi pourquoi tey ñu mën a taxaw argument yi ñu dàqoon ba ñuy xeex président Wade pour mu bañ a am troisième mandat ñoom ñu ñëw indi les mêmes arguments tegaat ko sur la table xanaa au moins sax nga imaginer yeneen sax mais les mêmes arguments dafa ñaaw loolu nag dañu wax ne ne xaw ma ndax mu ngi seen ginnaaw ou pas parce que ñu gisee tey sorti koo xam ne jege na président Macky Sall peut-être mën nañ jàpp ne ne nekkul si ginnaaw waaye bu loolu yëpp soxaluñu lu ñu soxal mooy su dee projet la mu nekk si kaw mu nekk si suuf mu nekk si ay biir néeg wala mu nekk si ëtt bi ak fuñ koy mën ci waxee nañ ko teg ci suuf parce que duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba te duñ ko mës a nangu nu ñu xeexee woon 2011 ba lu mel nii lu am sañu Sénégal c'est un acquis démocratique du ñu delluwaat si loolu c'est irréversible kenn du si delluwaat te loolu c'est un combat que nous mènerons jusqu'au bout Euh, marche boobu collectif ñoo lànk daal di amal bàyyi ko rond point bu Foire ba Liberté 6 ba ñu demee nag ba euh, buntu nag camp pénal fa ñu daal di nag amal seen i concert di tëgg ak klaxonné euh, foofee nga xam ne nag bëggoon nañu écho yi ñu doon def kii di Guy Marius Sagna fa nekk daal di koy nag dégg ñi di organisateurs yi nee ñu nag ñu ngay defati appel nguur gi di ko xamal ne daal bokk na ci si ñu mujj yi ñu koy daldi nag jox rawatina ñetteelu mandat bi mandat dañ ko teg ci suuf yeneen i marche ñu ngi koy waajal ñoomit it Amadou Moustapha Guy Marius Sagna ci boppam jot naa dégg ci biir noppam yuuxoo yi klaxon yi ak coow li nga xam ne marcheurs yi jot nañ ko amal bi ñu taxawee ci kanamu prison camp pénal fa nga xam ne fa lañ ko denc yuuxu yi coow li mel ni tulleeg màlle di riir ci biir nopp yi. libéré Guy Marius libéré bi ñu yegsee ci kanamu prison camp bi bi yenn ci manifestants yi dañoo demoon ba seen yaram tàng jër.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 lii Marie Sagna na ko bàyyi ginnaaw bi ñu yestee rond-point Liberté 6 daal di tàmbalee jël kàddu yi ki nga xam ne ma di Babacar Diop bokkoon kaso ak Guy Marie Sagna di xam na ne jot nañ daal di koy bàyyi mu ñibbi këram. Macky Sall na dem bàyyi ñu ci jàmm Guy Marie Sagna dellu ci baayam dellu ci njabootam. Fallou Diagne di sàkku ci mbooloo mi lu dalee ëllëg ñu andil añ Guy Marie Sagna fii ci kaso bi. Mary Teuw Niane fii ci Qatar. waxtaanu ñetteeli na ci biir marche bile manifestant yu bëri di xam ne ne ñoom de xalaatuñu benn yoon bàyyi njiitu réew Macky Sall mu fiy laaj ñetteeli mandat. troisième mandat xaju fi dañ ko fiy tere. suuf bile su mujj jeex ci jàmm ak salaam ci teewaay bu fés takk der yi ak taxawaay bu mucc ayib ci fi nga xam ne moo di ci kanamu prison bi foofale seen barrières yi woto yi taxaw fa temm ngir bañ lenn daal xew Euh, ci troisième mandat bi la ñuy daal di desandi ndax nag euh, kii di ministre bi ñu dénk wàllu développement communautaire rek équité sociale daal na ci rek àddu euh, nee na daal lii di nag waxtu wax ci ñetteelu mandat moo daal di jotagul loolu la Mansour Faye daal di xam ne gannaaw nemmeeku ba mu amal ca Porokhane ngir daal di nag xool juróomeelu forage ba fa nekk ndax mu ngay dox na mu waree waa wala déet. ñu teewlu kàddu yi Mansour Faye ak euh, Mamadou Camara. dama ne gis nga fu ne ci liggéey la ñu toll mbëbët askan bi ñu indi ci saafara fa lañ toll wàllu mandat jotagul président Macky Sall mi ngi soogaay def benn at ci mandat bi nga xam ni ci la toll des na ñeenti at avant mandat bi di jeex mais euh, nañ ko bàyyi mu liggéey bu su mandat jotee waxu mandat bu jotee bu neexee yàlla daañ ko wax mais lu ñu soxal fu mu nekk nii mooy liggéeyal askan bi parce que loolu la Sénégalais yi soxla ñu nekk seen kër di ñu déglu ñooñu loolu la ñu soxla waaye ñi nekk ci rajo beeg ca lay di wax loolu kooku demaa intellectuel la Euh, président de la république daal di jot rapport bu OFNAC 2017 2018 ci ay déclaration patrimoine euh, maanaam ñi war a siiwal li nga xam ne mooy alal ba ñuy amee laata ñu leen di jox ndombal euh, tànk bu ko defee ñu daal leen xayma buñ ca noppi am na ay recommandations ñu ci daal di nag def waa nag daal di càmbar ñaar fukk ak ñett ci ay dossier ci juróomi rapport bu Seynabou Ndiaye Diakhaté teewlu ngeen ko mooy njiital nag ci xibaaru tubaab yi yenn ci ay xeetu nag digle. yi nga xam ne daal nañ koy rek def ci euh, ñaari rapport d'activité yooyu lee dinañu fexe ba daal di koy nag traité na mu daal di nag waree gouvernement bi bu ko defee mu daal di ci jël ay matuwaayam loolu la njiit mi daal di xamle gannaaw bañ ko jébbalee rapport bi cour de justice bu CEDEAO ñoom nag ñu ngi ci mission sensibilisation daal di nag ñaax askan wi ñu jàppale nag juridiction boobu ñu ci sous région bi ñu ci bari ci askan wi xamuñu ko wala rek yoon yeen ñuy jaar ba daal di koy euh, looloo waral nag ñu bëgg eh, rawatina sax lañ leen yokkal te mooy am compétence wu mën àtte lépp lu jëm ci wàllu eh, teqi ak ak yelleefu doomu aadama bi li jëm ci nag décision yi nga xam ne cour gi da koy joxe te réew yi duñ ko appliqué yu ci mel ni eh, Sénégal vice président bu cour bi la mu ca daal nag xam ne mooy compétence boobu ameewuñu ko waaye ñu ngi def rek ay rek waxtaan ak ki sottante xalaat bu ko defee ñu am dogal di jëfe li nga xam ne nag mooy dogal Jibéry euh, Ouattara mooy vice président bu cour justice bu CEDEAO ñu déglu ko. Je conduisais une délégation qui est venue pour une mission de sensibilisation parce que la cour de justice de la CEDEAO n'est pas très bien connue dans les autres États. Elle est une institution communautaire sous-régionale et internationale mais elle a son siège à Abuja au Nigeria alors que la CEDEAO compte 15 États membres dont le Sénégal et les États. Et donc euh, les Sénégalais ak juróomi réew la daal di dajale Sénégal sax ci la bokk moo tax doomu Sénégal dañu war a xam cours bi ba sax yeneen i population yu dëkkul réewu Nigéria xam ne seeni droit la waaye ñu xam itam yoon yi ñuy jaar ba daal jokkoo ak cours bi surtout que sax jamono ji cour justice bu CEDEAO euh, am na compétence lépp lu aju ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama mu mën koo àttee la waral euh, at bu jot ñu daal di déplacé wu ci benn réew ngir def sensibilisation bi normalement nag cour bi décision bi nga xam ne dañ koy jël ci réew yi duñ ko appliqué loolu du mbiram waaye jamono ji ñu ngi waxtaan di def ay lobbying ci wetu état yu bari bu ko defee ñu mën jëfe dogal yi le ndax du jëriñ dara ñuy jël ay dogal te du am jëf parce qu'il ne sert à rien de rendre des décisions lorsqu'elles ne sont pas exécutées Euh, secrétaire général national adjoint bu syndicat national corps gras yi wàllu mbéy mi ñu ngay ñaawlu nag autorisation yi nga xam ne ngir daal di nag euh, exploité euh, jiwu ji directeur bu cabinet bu ministre de agriculture moo daal di nag fësal li ni mel tax nag ñu koy ñaawlu ñoom ndax la ñu gis mooy dañuy daal di nag saboté ak fexe ba daal di nasaxal kër googu di Sonacos loolu la nag secrétaire général adjoint bi xamle moom ci mbay Ndiaye ñu déglu bi campagne bi tàmbalee. ñi nga xam ne ñoom lañ doon xëjool gerte gi dañ andi woon ay façon yoo xam ne usines mënuñu ko woon dékku. dañu génnoon wax attirer attention nguur gi ci ne il faut ñu organiser waat affaire bi. léegi biñ ci jógee ci loolu biñ exporté lu mat euh, ñeent téeméeri junniy tonnes donc la ñu wax ne comme exportation foofu la yemoon daaw ak ati weesu fa lañ koy yemale ministère woote réunion acteur yëpp ñu daje ministère ñu arrêté ne dañu arrêté exportation bi biñ ko arrêté mesure liñ ci njëkk gis comme mesure mooy usines yi commencé nañu nañ jaam gerte parce que suñ fi ñuy jëlee gerte ci Tamba. ak ci Ziguinchor ak foofu ak usine Diourbel beeg yeneen usines yi camions yi ñu ngi doon ñëw malgré que melul na mu waroon mel mais ñu ngi doon ñëw léegi dañ toog fan yi dara ñëw mais bi ñu gëstoo dañ ne ministère directeur de cabinet ministre bi daa ñoom ñoo joxe ay autorisation ñeneen lu war a toll ci juróom fanweer juróom benn jun fanweer junniy tonne graine coco loolu boo ko xoolee juróom benn fukki junni wala juróom ñaar fukki junni tonne la ci graine coco pour ñu exporter waat ko loolu boo ko xoolee buñ ko bu ñu bàyyi woon usine Sonacos jënd ko dina mën a doxal usine Ziguinchor ak bu Diourbel campagne bi léegi tey jii nii gerte googu ñu ngi ubbiwaat campagne bi xaw ma kan moo autorisé pour ñu def loolu léegi tey jii nii résultat bi mooy usines yi camion ñëwatul léegi suñu lieu de yi nekkoon ay Tamba yooyu xam ne dañ ko defoon pour mu jege ñi jaay gerte gi ndax ñu mun ko fa indi camion ya fa doon rang nit ñi dañu leen corrompre ñu jógee foofu fas yéene prix proposé prix yoo xam ne Sonacos mënu ko fay malgré que Sonacos def na effort ba rapproché woon ci prix yi nekkoon ci marché bi donc li xew tey mooy vraiment situation boobu ñun muñ ko comprendre ñun nag sabotage sax lañ ko jàppee parce que Sonacos ak li ci état bi daj yëpp yëpp yëpp yëpp ba pare mu a mën a am gerte ñu def effort ba pare ay nit di jël décision xam ne day tax Sonacos du mën a dox day dàq ay nit loolu parce que amul liggéey loolu ñun comprendre ñu daal te moo tax ñu ngi yëglu ci muy président li moo xam ne Sonacos daf ko mos a ñor ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo yor affaire bi loolu bu fekkee yëguñu ko tam ñu yëg ko xam ne mu ngi bëgg a yàq liggéey Sonacos ak liñ ci daj yëpp. Adama Ndione. Euh, pàcc bu njëkk bi fii lañ koy yemale ci kanam Adja Habsa Elimane Wane dina digg ci revue de presse bi buñ ca noppee ñaareelu pàcc Sud Matin ak Babacar Samb lay doon 7h30 euh, jaajëfal Pape Laye Dieye mi fare ci sottandikukaay bi mbokk yi ñuy déglu jërë ngeen jëf ci déglu bi. À l'écoute de Sud FM Sen Radio bonjour et bienvenue dans Sud Matin seconde édition le chef de l'État devrait s'abstenir de se prononcer publiquement sur des questions relatives au fonctionnement interne des universités afin de préserver les libertés académiques garanties par la loi relative aux franchises et libertés universitaires, déclare le syndicat unitaire des enseignants du Sénégal, section enseignement supérieur et recherche. De plus, le Sud-Est euh, enseignement supérieur et recherche estime que si une réflexion sur euh, l'éméritat euh, n'est pas dénuée de pertinence, l'éméritat ne saurait en aucun cas être la panacée et ce pour moins euh, deux raisons. D'une part, si au bout de 60 ans d'existence, l'université Cheikh Ante Diop n'arrivait pas à assurer une relève scientifique capable d'encadrer les mastériens et doctorants, ce serait là le signe d'un échec grave que le maintien artificiel en activité euh, d'enseignants euh, qui aurait dû euh, former cette relève, euh, cette relève hein, qui euh, ne saurait résoudre. Euh, en ce qui concerne le manque d'enseignants de rang magistral, le syndicat demande le recrutement de jeunes enseignants au fait des problématiques actuelles de la recherche scientifique et de les mettre dans les conditions idoines pour mener leur propre recherche et avancer dans la carrière universitaire. Quant aux retraités actuels, euh, euh, le président de la République doit les remercier en leur donnant la euh, retraite euh, décente qu'ils méritent plutôt que d'user d'expédients pour prolonger artificiellement leur activité. Le Sud-Est, section enseignement supérieur, sorti un communiqué pour réagir suite de l'État au sujet de la situation académique dans certaines euh, spécialités enseignées dans les universités publiques. Le président Sall a de l'enseignement supérieur, au recteur, notamment celui de de les modalités d'instauration les difficultés que rencontrent certains étudiants demande fait suite à un certain nombre euh, d'autres considérations spécifiques portées dernièrement en Conseil des ministres et relatives au fonctionnement des universités publiques du euh, Sénégal. Le directeur général de la Société nationale de recouvrement a été reçu par le calife général des Mourides Prohan, maître Bassirou a sollicité l'intervention des chefs religieux et des leaders d'opinion pour sensibiliser les Sénégalais sur l'importance du recouvrement des créances Mamadou Camara. Ce vendredi, le directeur euh, général de la Société nationale de recouvrement et sa délégation ont été reçus par le calife général des Mourides Serigne Mountakha Diom a profité de son audience avec le calife général des Mourites pour lui demander de prier pour un Sénégal de paix. Maître Bassirou Nous avons demandé au marabout de prier pour nous, de prier pour nos structures, de prier pour le président de la République, son excellence Macky de prier aussi pour tout le pays, parce que c'est un homme de paix, c'est un homme de Dieu. Mais il était important quand on est ici qu'on nous demande quand même de prier pour nous, de Société nationale de recouvrement a demandé aux Sénégalais de respecter le recouvrement des créances. Maître Bassirou Ngom. Une structure de recouvrement qui est importante pour l'économie de notre pays et qui intéresse tout le secteur de l'activité économique de notre pays. Parce que vous ne pas sans savoir que ça a été créé en 91, la SNA, pour quand même assainir euh, le secteur bancaire, aussi procéder au recouvrement des banques qui étaient en faillite. par cette structuration. Beaucoup de personnes ont été concernées. Et donc, euh, dans tous les pays, dans tous les couches sociales, la SNF intéresse le Sénégal. Nous profitons aussi de l'occasion pour lancer un appel, pour sensibiliser les Sénégalais sur la nécessité pour les personnes qui doivent chercher à la SNF de faire quand même des C'est important de rappeler aux gens que quand on doit une dette, il faut tout faire la rembourser, surtout quand c'est d'une personne qui a disparu. Ses héritiers doivent tout faire pour quand même l'amorcer dans beaucoup d'activité. Il compte sur les leaders d'opinion et les hommes religieux pour que la sensibilisation soit menée partout à l'intérieur du pays. Kaoulak, Mamadou Kamara, Sud FM. Mamadou Camara Sali Portudal a désormais son commissariat. L'édifice a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ali Ndiaye. Cette infrastructure va abriter un département de l'OCRTIS pour la lutte, contre la drogue et un commissariat spécial du tourisme. Les détails avec vous, Babacar Sawa. la commune de Sali Portudal dans le département de Mbour. Le inauguré le commissariat urbain de la dite localité, un commissariat qui selon le ministre Aly va abriter un département de l'OCRTIS et un commissariat spécial du tourisme, ceci dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et pour la protection de la commune de Saly Portudal, zone ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je vous invite à travailler en parfaite intelligence et complémentarité avec la gendarmerie qui jusqu'ici

Bougane Gueye. kon population yi lépp tout ce les populations ont besoin. pour Tabaski. reste notre priorité. C'est pourquoi nous avons dégagé une enveloppe de 60 millions pour ce bijou. Nous voulons un centre de santé de référence, un hôpital moderne, c'est une doléance. Sali est un centre pour les sportifs. Quand ils ont des compétitions, ils viennent ici. Mais à l'heure des entraînements, ils vont à Thiès, à Dakar ou ailleurs. Nous voulons un stade municipal, norme FIFA. Nous avons les moyens, le plan. Nous ne demandons que l'appui de l'État pour cela. Finalisation du processus de basculement vers la télévision numérique terrestre TNT, la date du 2 mars prochain a été retenue pour le lancement opérationnel qui aura lieu à Mbacké. 1 million 400 000 décodeurs seront commercialisés par Excaf Telecom. Il faudra débourser 15 000 francs CFA pour être dans le numérique. Avec vous, Après plusieurs années de lenteur dans la mise en œuvre du passage de l'analogie vers le numérique, la finalisation du processus de basculement va désormais être enclenchée. Le département de Mbacké va donner le signal. Ousseynou Dieng, directeur de la communication. point de vue poids démographique, du point de vue centre de gravité à la limite même du territoire national, l'opération va être lancée et de manière progressive, d'ici jusqu'en juin, effectivement, nous avons renforcé la couverture, facilité l'accès aux décodeurs. Et aujourd'hui, le plus important, c'est vrai, c'est l'infrastructure, c'est l'accès aux décodeurs, mais c'est les contenus. Dans cette migration de l'analogie vers le numérique, le décodeur est indispensable. La société Escaf Telecom va se charger de la distribution. Il faudra débourser francs CFA pour se le procurer. Sidi Omar Massar Diagne, PDG de Escaf Telecom. Le décodeur, le quinze parce que y a une évolution technologique le marché a évolué les Déco 2 il y en aura en quantité suffisante et dans toutes les régions du Sénégal on sera obligé d'avoir environ un million million million quatre cent mais toutes les dispositions comme je l'ai dit tantôt ont été prises dans le cadre de ce basculement il y a quand même déjà euh, 350 000 décodeurs qui sont, qui sont là, qui vont arriver. Une fois ce basculement acté, évaluer les télévisions sera plus facile. Babacar Diagne, président du CNRA. J'ai une grande préoccupation que vous savez, c'est le sondage. Le sondage aujourd'hui, ça facile avec cette technologie. Le sondage, l'analyse des programmes, l'analyse de tout cela, des contenus, est facile avec TDS. Aujourd'hui, avec cet instrument, on peut faire le sondage facilement et mettre les gens d'accord. TDSSA et SCAF Télécom ont 4 mois d'ici juin 2020 délai fixé par les pays de la sous-région pour rendre accessible la TNT sur toute l'étendue du territoire national. Dominique Kama, euh, parlons de l'actualité politique. Le débat sur le troisième mandat est une tentative de diversion euh, allumée par le régime afin de faire oublier le rapport la Cour des comptes et les révélations du livre de Pape Alignan. Euh, Madiop Diop, maire de Grand Yoff, souligne ce fait et indique que les khalifistes sont toujours solidaires à Guy Marius Sagnan et au combat du peuple. Voici Madiop Diop au micro d'Amadou Moustapha Dian. Pour demander la libération de Guy Marius Sagnan Oui. Voilà. Mhm. Qui passe le Guy Marius, passe le... Ce Guy Marius a dit, le courant est trop cher. Actuellement, il est en prison. Mais ce qui est plus, il, était, en, prison avec d'autres gens, mais les autres pour lui, lui, lui, lui rester toujours en prison. Ce n'est pas normal. Notre débat est soulevé actuellement, troisième mandat. Non, ça c'est pour divertir les Sénégalais. Le fait de la Cour des comptes. Parlons de ça. beaucoup de khalifistes dans la marche, c'est tout fait normal. parce que on demande à, à de respecter les droits de, des C'est lui c'est lui, le, garant de notre constitution. Il doit protéger, protéger les Sénégalais. On est là pour nous dire C'est normal. On doit décentraliser les actions. C'est comme ça. Il faut aller dans toutes les communes. de même dans les communes qui, sont, au fin fond même du Sénégal. La mobilisation, elle est réussie selon vous du mouvement Agir, dixit euh, ceux qui se battent aujourd'hui euh, pour l'intérêt du Sénégal ne sont pas à l'abri d'une injustice. Il s'est également prononcé sur le débat du troisième mandat soulevé par les responsables de l'Alliance pour la République. Il estime, lui, Tcherno que c'est inacceptable et ignoble. Voici Tcherno Bokoum au micro d'Amoudou Mustafa Djan. Que Guy Marissagna doit être libéré. Nous continuerons à être là pour réclamer la même chose parce que c'est une question de principe. Il ne faut pas voir Guy Marissagna, il faut voir chacun d'entre nous parce que Guy Marissagna s'est battu pour le Sénégal. Ceux qui se battent aujourd'hui pour le Sénégal ne sont pas à l'abri d'une injustice, qu'ils s'appellent Guy ou Matar ou Modou. C'est un débat honteux. J'ai honte quand j'ai vu certains hauts responsables de l'APR nous invoquer ou des questions liées à l'article 27 ou nous de la Constitution encore nous parler de doctrine. C'est honteux parce que ce sont les mêmes arguments que, nous avions, contre le troisième mandat du président Ablaye Mais nous nous sommes battus tous avec eux, ils étaient là. Nous nous sommes battus pour que de, telles choses ne puissent plus se reproduire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Ce sont les délices du pouvoir qui les poussent à avoir un autre comportement. C'est inacceptable. C'est pourquoi nous avons dit très clairement, nous n'accepterons pas un projet pareil, que ça soit porté par le président de quelle que soit la personne qui portera ce projet, nous disons très clairement que nous nous opposerons farouchement à ce projet. C'est inacceptable qu'on puisse revenir à ces acquis démocratiques. Le débat sur le troisième mandat qui s'est donc euh, invité à la marche du collectif Nyolank de de l'échangeur de la foire euh, au rond-point de Liberté 6 avec comme point d'orgue le concert de cris et de klaxons devant la prison de camp pénal pour demander la libération de Guy Marius Sagnan. Les organisateurs lancent encore une fois un appel au pouvoir car selon eux, ils ne pourront pas contenir tout le temps cette foule. Les débats sur le troisième mandat, c'est avec Amoudou Moustapha Dian. Guy Marius Sagna, du fond de sa cellule de camp pénal, aura certainement entendu ce concert de cris, de klaxons et de sons, tout azimut, devant le portail de la prison, réclamant sa libération. cette démonstration de force de Noo fut le temps fort de cette marche des manifestants surexcités qui ont parfois même toisé les forces de l'ordre devant les barrières installées devant la prison de Camp Liberté 6 Au finish, plus de peur que de mal, grâce à la forte implication des initiateurs, les responsables de Noo préviennent, ils ne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 Babacar Diop, ancien co de Guy Marius continue encore une fois de réclamer sa libération. Les larmes du père de Guy Marius constituent un avertissement solennel pour notre pays, car les larmes des humiliés constitue une maladie plus grave que l'épidémie du coronavirus. Le débat sur le troisième mandat s'est également invité à cette marche et les manifestants disent clairement. troisième mandat xam nga fi dañ ko fiy pour une marche qui a été encadrée du début à la fin par les forces de l'ordre avec un imposant dispositif sécuritaire devant la prison de Camp Pénal séjourne Guy Parlons toujours de ce débat agité autour du troisième mandat. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité fiscale, de l'équité sociale, temporaire et territoriale soutient que le moment opportun n'est pas encore venu pour se prononcer sur la question. Mansour Faye se nomme, il était à Prokhane pour procéder à la mise en marche du sixième forage. Il est au micro de Mamoudou Kamara. Mais vous savez, nous, ce qui nous intéresse, honnêtement, c'est d'apporter des solutions par rapport aux préoccupations des populations. Le président Macky vient de boucler sa première année. Il reste encore, par rapport à ce mandat, quatre autres années. Nous travaillons vraiment dans cette dynamique-là. La question des mandats n'est pas une question d'actualité. Au moment opportun, certainement, nous allons en parler. Parlons tout à fait autre Le président de la République a reçu les rapports 2017-2018 la déclaration de patrimoine. Des recommandations ont été faites. L'OFNAC, justement, À la faveur des missions qui ont été conduites, nous avons pu finaliser et examiner 12 dossiers en 2017 et 11 en 2018. au terme de leur examen par l'Assemblée des membres, cinq rapports d'enquête ont été transmis au procureur de la République. Fort heureusement, Monsieur le Président de la République, engagement résolu à combattre ces fléaux et pour nous une source d'encouragement qui entretient en chacun de nous l'espoir de voir notre vie se entièrement des entraves de la corruption. Les recommandations contenues dans les deux rapports d'activité feront l'objet d'un traitement très attentif de la part du gouvernement, a dit en tout cas le chef de l'État Macky que nous écoutons avec nos confrères de la RTS. Depuis que je vous ai confié cette noble mission, j'ai le plaisir de constater que tous les actes que vous posez sont balisés par ces exigences et par la volonté d'inscrire les actions de l'OFNA dans une trajectoire de des règles qui gouvernent l'exercice d'une mission aussi délicate. Il me plaît de relever dans le cadre de votre stratégie de prévention l'intensification et la multiplication des activités de mobilisation sociale et de sensibilisation auprès des populations et des agents publics concernés par la déclaration du patrimoine. Pour aboutir aux résultats que vous avez consignés dans les deux rapports, vous et vos collègues et collaborateurs avec différentes montres au quotidien d'engagement et de dépassement dans le traitement des dossiers les plus complexes. Fort heureusement, vous avez bien compris que votre mission relève du sacerdoce. C'est pourquoi je vous exhorte à persévérer dans cette voie, certes difficile, moins communicante, mais exaltante. Les recommandations formulées dont les deux rapports d'activité feront l'objet d'un traitement très attentif de la part du gouvernement. J'y veillerai personnellement. La Cour de justice de la CEDEAO en mission de sensibilisation au Sénégal, cette juridiction communautaire sous-régionale se fixe comme objectif d'aider les populations de chaque pays membre à connaître les procédures de saisine de cette Cour. La Cour justement est désormais compétente pour juger les affaires de violation des droits de l'homme concernant les décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO non appliquées. Le vice-président de pas de leurs compétences. Toutefois, oui, toutefois, des discussions sont menées pour une exécution obligatoire de chaque mesure arrêtée euh, pour euh, donc euh, donner suite plus de crédibilité à l'institution Beribe Ouattara, vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO, au micro de Adam John. Je conduisais une délégation qui est venue pour une mission de sensibilisation parce que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas très bien connue dans les autres États, elle est une juridiction communautaire sous-régionale et internationale, mais elle a son siège à Abuja au Nigeria, alors que la CDAO e compte 15 États membres, dont le Sénégal, un des États importants. Et donc, euh, les Sénégalais, comme les autres euh, ressortissants des États membres qui sont hors du Nigeria, ont également droit à cette cour et doivent s'approprier les droits communautaires, connaître les procédures de saisine et les compétences de cette Cour. C'est pour cette raison que la Cour annuellement se déplace euh, vers les populations pour s'adresser à elles, pour leur expliquer, afin de leur permettre de mieux connaître euh, la Cour et son fonctionnement, pour pouvoir euh, la saisir. Surtout que la Cour a reçu compétence pour juger les affaires de violation des droits de l'homme. Donc il est plus qu'urgent qu'elle se déplace pour aller s'expliquer aux, populations. Normalement, la Cour n'a pas à exécuter cette décision. Il appartient au parti de faire exécuter la décision. la Cour se préoccupe de la non-exécution de cette décision parce que, comme elle a le volet droit de l'homme, donc l'efficacité de la justice et son effectivité rigide dans l'exécution des décisions. C'est pour ça qu'on s'en mêle et on essaie de faire du lobbying auprès des États afin que nos décisions soient exécutées. Euh, donc, euh, pour que la Cour ait beaucoup plus de crédibilité, parce qu'il ne sert rien de rendre des décisions lorsqu'elles ne sont pas exécutées. Le secrétaire général national adjoint du syndicat national des corps gras dénonce les autorisations d'exportation des graines délivrées par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, un acte de sabotage. visant à fragiliser la Sonacos, t il Ndiaye au micro d'Adam Ndiaye. On va qualifier cette campagne-là de catastrophique. La concurrence n'était pas supportable par l'industrie. À force d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité absolue de réorganiser cette campagne, après que tonnes soient exportées, le gouvernement a convoqué par le biais du ministère de l'Agriculture une réunion des acteurs. Réunion suite à laquelle on avait suspendu les exportations. C'était servir à Sonacos et les autres huiliers. Sonacos commençait à recevoir des graines sur nos euh, de stockage tampon de, de, de Tamba et les camions avaient repris vers les usines. Mais à notre grande surprise, on vient d'apprendre que ce février, le directeur de cabinet du ministre qui avait fait une sortie il quelques semaines et essayant d'expliquer que cette campagne était provisoire, nous, nous avions compris dans provisoire, qu'on laisse cette année jusqu'à l'année prochaine pour qu'on reprenne les exportations. Mais nous, on apprend qu'il y a des autorisations qui ont été données à à peu près 11 opérateurs aujourd'hui pour une quantité de 30 000 tonnes de graines décortiquées, ce qui va équivaler à presque 60 à 70 000 tonnes de graines coques qui ont été autorisées à sortir, soit disant que ces gens-là l'avaient déjà acheté avant qu'on ne bloque. Mais nous, on dit non. le stock qui devait être exporté était de 400 000 tonnes. Lors de la réunion, il ne manquait quelques centaines de tonnes. Maintenant, aujourd'hui, a une brèche qui est ouverte par des, euh, des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture qui ont encore bouleversé tout. Aujourd'hui, dans les usines, les camions n'arrivent plus. Puis si je l'exemple de Durbol aujourd'hui, on n'arrive pas encore à atteindre les 4 000 tonnes. Donc pour un objectif révisé qui était de 25 000 tonnes ou 30 000 à 8 000 tonnes, on ne parvient pas avoir, à avoir les 4 000 tonnes. Le résultat,

que les instructions qui ont été données ne sont pas respectées du tout. Le gel en tant que tel avait eu des impacts parce qu'on commençait à avoir des grèves. Mais c'est qu'ils ont contourné l'affaire, ils ont, ils ont si on peut dire. Ils ont, le gel a été levé encore. C'est ça le problème. Bocus euh, d'or Sénégal, une compétition du savoir culinaire qui a réuni euh, sept chefs culinaires pour un jury de, des Marocains et des Sénégalais qui ont composé le jury. Le gagnant pour participer à la Coupe d'Afrique des lauréats de la pâtisserie. Cette étape euh, permettra au Sénégal de bien se préparer pour les compétitions internationales. C'est un reportage signé à Issetou Sénégal, plusieurs formes de gâteaux exposés qui laissent entrevoir l'art

Donc euh, tout est à jouer et le meilleur va participer à la Coupe d'Afrique. Euh, C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de, Sénégal soit bien représenté à la Coupe d'Afrique. Une première édition de la Coupe du Monde des lauréats de la pâtisserie où des chefs cuisiniers marocains, écoles de formation ont pris part. Un objectif d'accompagnement de ces jeunes talents précise le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Déjà, c'est de mettre les gens au nord. Aujourd'hui, quand on voit tous les acteurs qui sont là, qui sont de grands chefs connus avec euh, euh, de les chocolateries, partant des, structures de farine et toutes ces industries, euh, alimentaires, ici présentes, voudrait dire qu'aujourd'hui, il savoir-faire que aussi dans le cadre de la formation et de l'accompagnement du talent et du génie créateur sénégalais, je crois pouvoir tout le dynamisme de ces jeunes étudiants-là engagés pour ressembler demain à ces grands chefs-là, qui seront à coup sûr les grands chefs de demain. Un mot d'encouragement, je ne suis pas euh, très fort, je crois que le jury va apprécier un peu et je pense que c'est une compétition saine. Une première journée de la sélection nationale pour la Coupe du Monde des pâtisseries où la recherche de talent et le savoir-faire concert des chefs cuisiniers se poursuivra jusqu'à samedi. Les finalistes participeront à la Coupe du Monde de la pâtisserie. Ligue sénégalaise, 12e euh, journée euh, ce samedi au stade Ndiarem de Guédiawaye. Euh, NGB va recevoir Ndiambour et demain dimanche. Puis au stade Djibril Diagne, GF va recevoir Djambar. Au stade d'Amba, vous aurez l'affiche Gorée Douane. Au stade de la va se déplacer et ce sera contre Seneps. Au stade Aline Situé Diata, Casasport, Stade de Mbourg et au Stade Alassane Djigo. Euh, le leader Tengue FC va défier ASP. Pikine Mbour Petite Côte Jaraaf c'est au stade Caroline Faye Ligue 2 sénégalaise 12e euh, journée euh, ce samedi CSFC Africa Promo Amitié euh, FC GFC et puis stade Massène Sène J va recevoir Diamono et puis Sonacos Keur Madior Uzo Linguère et puis dimanche Renaissance Port Caroline Faye. Vous aurez l'affiche Demba Diop Université Club. Football hors de chez nous, Liga 26e journée, euh, 26e journée de la Liga, le Real Madrid accueille l'FC Barcelone. Le match est prévu euh, dimanche. Aujourd'hui, euh, vous aurez Eibar Levante, Valence, Betis Séville, euh, Leganes Alaves et Grenade Celta euh, Vigo. Hier, Real Sociedad euh, s'est imposé devant Valladolid 1 à 0.

Premier League euh, s'étend en Angleterre. Euh, le leader euh, Liverpool de Sadio Mane se déplacera à Watford. Et puis, vous aurez également Brighton, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Newcastle, Burnley et West Ham, Southampton. C'était l'essentiel de l'actualité. ñaareelu pàcc Sud Matin dañ koy daal di nag doore ak directeur général bu société nationale bu recouvrement moom mi nga xam ne nag kii di xalif général des Mourides daal di na amal foofee ca Poroxaan ba si Bassirou Ngom moom nag daal dinay rek sàkku li nga xam ne mooy intervention bu nji kilifay euh, diine yi ak leader d'opinion yi ngir ñu daal di nag ñaax yi ci solo bi nga xam ne wàllu recouvrement daal na koy rek am ci mim réew Mamadou Camara. ajjuma ji directeur général société nationale bu recouvrement ànd ak délégation bu takku ziyaare ji xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké ca Porokhane moom maître Bassirou Ngom bi mu janoog Serigne bi ñaan na ko pour mu ñaanal Sénégal jàmm gën fee law maître Bassirou Ngom. société nationale boo xam ne dafa intéressé Sénégal yëpp te loolu boo ko yoree aussi kilifa bu toll nii nekk fii jël suñu contribution indi ko fi nga xam ne mooy Porokhane auprès du khalife général des mourides saafonte ak moom ñu ñaan ko mu ñaanal ñu ñaanal suñu structure ñaanal président Macky Sall mais aussi ñaanal Sénégal te bu ñëwee aussi parce que xalifa bi recevoir nañu soxna baal yi na jox ñu ay berne wax dëgg yàlla kooku aussi ñu ngi koy gërëm dem nañ ci jumaa ji julli ak ñëpp lu nañ xutba imam ci li mu wax lu am solo wax na jàmm ji nga xam ne mu ngi am am Sénégal te ne suñu jikko yi aussi dara yàqu aussi parce que wax na si ay fitna fitna mun na nekk fitna physique fitna aussi mun na nekk fitna ci wax comportement te fitna si wax ak comportement bari na si dëkk lu bëri boo xam ne baax na nit ñu baax ñu mel noonu dëkk ñu ñaanal ñu ñaanal président ñaanal Sénégal. moom directeur général société nationale recouvrement ñaan nag lu jëm ci wàllu recouvrement créance yi ñu montale ko mu ciy tàllal loxo sénégalais yëpp maître Bassirou ne luy jàppale état la luy jàppale aussi koom-koomu réew mi parce que bi ñu koy créé dañu waxoon ne assainir secteur bancaire fexe ba banque yi li nga xam ne noonu la war a doxee mu doxee noonu fexe ba aussi ñi nga xam ne amaloon nañ ni yi ñu daan woon ñu fay leen te dafa bëri rek ñoo xam ne peut être nekkatuñu fi mais seen i njaboot ñu ngi loolu bëri na si te xam nga ne nit aussi bu dëddoo ay njabootam bu fekkee am na lu ñu fi bàyyi woon ñu góorgóorlu delloo ko loolu aussi na si ñu koy sensibiliser Sénégal aussi si loolu ak si leneen mu kilifa diine yeeg kilifa aada yi ñu gën a ñaax askan wi pour ñuy fay li nga xam ne moom mooy bor yooyu nee na day gën a suqali koomu Sénégal Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Eh, Mamadou Camara ñu dem ak euh, Mbour foofee Saly Porte yi daal ne ñu nag am na commissariat am euh, banxaas euh, boobu nag daan nañ koy inauguré ci teewaay ministre bi ñu dénk wàllu nag intérieur ak kaaraange askan wi Aly Ngouille Ndiaye eh, mu ne sa infrastructure boobu dina rek dalal ab département. département bu OCRTIS bi xeex lépp lu aju ci wàllu nag euh, drogue commissariat spécial boo xam ne itam wàllu tourisme lay yëngu. Babacar Sow boole doole yi ngir andi kaaraange ci commune bu Saly Portudal ci département bu Mbour jëwriñ jore wàllum biir réew mi ak kaaraange gi daal di fay ubbi ab commissariat urbain bu yees peq di commissaria urbain boo xam ni suñu sukkandikoo ci Aliou Nguy Ndiaye nee na daal dana dalal ab makkaan boo xam ni makkaanu OCRTIS la ak beneen commissariat boo xam ni dina jàppale tourisme loole dina tax ba ñu mën a xeex lépp loo xam ni jëm na ci wàllum ñoll ci gox bi rawatina andi kaaraange gu mat sëkk Saly Portudal bi nga xamee ni doomi bitim réew dañ fiy faral di nekk Aliou Nguy Ndiaye commissariat bi ak spécificité yi nekk ci moo tax mu am ay services yoo xam ne yii indi nañ ko fi ndax fii am na bureau occultiste mooy ñi nga xam ne ñi ñooy toppatoo wàllu drogue commissariat bu tourisme ndax kenn ku ne xam na place du tourisme moom aussi am na antenne am boo xam ne bii day nekk fii commissaire bi ñu fi affecté muy commissaire Daouda Mbodj waaye nag commissaire laata ngay ñëw fii gendarmerie nga fekkoon muy gérer sécurité commune ak yeneen commune normalement bu ngeen liggéeyee te a bokk liggéey sécurité bi da wu population yi ñoo ciy partenariat boo xam ni def nañ ci juróom benn fukki million yoo xam ni mu ngi jógee ci Gafaga commune bu Saly Portudal suñ sukkandikoo ci jaraafu dëkk bi Ousmane Gueye li mu yee yàbbi yëkkati ay kàddu jooyal ko njiitu mi ngir mu gunge ko ci yeneen makkaan yoo xam ni Saly Portudal soxla na ko Ousmane Gueye jaraafu dëkkub Saly Portudal kon population yi lépp lu leen di andil jàmm nañ leen si nekk si la ñu soixante millions c'est pour tabax cette biisu la ma am benn yóbbante a am procès tabax benn centre de santé de référence benn hôpital doléance la bu ma am di la ko jox nga tegal ma ko ci loxo président de la république sali sportif Sénégal yépp ñu amee compétition internationale ci biir réew mi waaye su heure entraînement jotee dañuy génn dem Thiès wala ñu génn dem Dakar wala feneen pour def fa seen entraînement sali mérito na am stade municipal norme FIFA lay am am naa terrain bi am naa plan yi te pare aussi pour jël ci xaalisu Bourg pour Sud FM. ok ñu daal di nag ñëw ci waa r ñi nga xam ne ñu ngay daal di àttu nag njiitu réew mi la ñu daal di gis mooy njiitu réew mi warul rek di àddu euh, publiquement ci li nga xam ne mooy li aju ci doxalinu euh, université yi rawatina seen biir yi ci mel ni liberté académique yi nga xam ne ñoo tax euh, ba ñuy daal di doxal la ñuy wax franchise universitaire mu nekk xeetu nag barab bi nga xam ne way takk der yi war ko nag weesi di jël di dugg ci université boobu loolu nag syndicat unitaire bu ëmb jàngalekat yu Sénégal du sud-est enseignement supérieur ak recherche ñoo ko daal di nag euh, xamle ñoom ñi daal di nag euh, gis ne ci ab communiqué bi ñuy daal di nag euh, fësal nee na ci déclaration yooyu njiitu de mi daal nag def jëm ci situation académique bu yenn ci ay euh, njàng mu kawe mi président Macky Sall euh, daal di sàkku na ci ministre enseignement supérieur ak recteur euh, yu université yu ndakaaru rawatina ñu daal di examiner lépp loo xam ne nag dafa jëm ci anam yi ñuy amalee nag wàllu njàng mu kawe moomu ñu gis ne nag jafe-jafe yi étudiants yi di jànkonteel ci wàllu master bokk na ci li waral mu daal di génne bataaxal boobu ñu ne nag. sàkkuteef euh, boobu nag euh, étudiants yi nga xam ne ñoo war a wéyal seen njàng ci université publique yi ñoo tax ñu daal di koy nag euh, fësal fexe ba daal di nag matal yoon yi nga xam ne moom la ñuy daal di jaar ngir rek yëggali wàllu télévision numérique terrestre di TNT yi date bi nag ñaari fan weeru mars bi ñu jëm la ñu joxe ne daal ci la amal lancement wàllu lépp daal di nag yemb ca Mbàkke benn million ak lu war a toll ci juróom-ñeenti téeméeri ni ci ay décodeur nañu dinañ ko daal di euh, jaay Excaf mooy def li ni mel ñu ne nag fa ñu daal di génne fukk wala euh, ñetti junni ci suñuy koppar bu ko defee ñu daal di ci nag am boobu mooy pàcc bu mujj bi Dominique Kama. ay at gannaaw bu ñu nemmeekuwee yi xaay ngir jóge ci analogie dem ci numérique door nañ phase bu ñu woowee finalisation wu bile projet département bu Mbàkke lañ tànn ngir mu door yëf yi Ousseynou Dieng mooy directeur de la communication. technologie bu ñëwee fenn foo am lu mu yàq mais am lu mu defar loolu dañuy fexe ba nga xam ne loolu muy defar ñu mun na am njeexital maanaam li ñaan technologie destructrice et créatrice maanaam day yàq di defar alors Excaf comme ñoom amoon nañ expérience depuis MMDS bi ñëpp xam nañ ci kii bi et puis li ñu jot a won li nga xam ne gis nañ ko ci Dakar ci wàllu qualité signal ñu koy rafetlu di di ñaan yàlla sénégalais ba mu nekk fu mënti nekk mu mun ko jot boo mooy nekk fréquence yi nga xam ne opérateur téléphone yi moom la ñuy soxla pour def 4 internet mobile pour mu gën a ci bile coppite ngir jóge ci analogie dem ci numérique lii di décodeur lu ci am solo la société bii di Excaf Télécom moo ko fas yéenee jaay décodeur bu nekk ñu ngi koy wecceekoo ñetti junni Seydou Oumar Massar Diagne moo jiite Excaf Télécom. le décodeur le prix était de et maintenant quinze parce que. yooyu évolution technologique. bi mu ngi doon jar ñaari junni waaye léegi ñetti junni dañ ko fas yéene wecceekoo ndaxte daam ay jumtukaay yu yees yuñ ci def teg ci tamit marché wu décodeur bi daa soppee décodeur yi askan wi nañ ko mën a amee fépp ci Sénégal décodeur yi ñu war a jënd ñu ngi koy xayma ci lu jege benn million ak xaaj. 350 000 décodeurs qui sont qui bu ñu duggee ci lii di numérique bi nag bu ñu sukkandikoo ci Babacar Diagne jiite CNRA natt tele yi dina gëna yomb société yi di TDSSA ak Excaf Télécom am na ñeenti weer fileeg weerum juin ci at bi ñu nekk ngir matal lii di TNT bi ci diwaan yépp ci biir Sénégal. Euh, Dominique euh, Kama euh, ñu daal di nag ñëw ci coowal nag ñetteelu mandat bi coow loolu nga xam ne nag xeetu diversion lañ ko daal di nag jàppee loolu nag maire bu Grand Yoff moo def jàngat mi di mel nee na daal yi fas yi fës ci wàllu Cour ak téere Pape Alé bi bokk na ci li tax daal ñu bëgg rek wëlbati xalaatu nag askan wi ci coowal ñetteelu nag mandat ñoom ñi ànd ak Khalifa Sall fas yéene gën di taxawu kii di Guy Marius Sagna ci koom combat boobu askan wi daal di moomal boppam Madiop Diop ñu déglu kooku Amadou Moustapha Dia. waaw ah, maa ngi ah, rek bu ñu pour demander ñu bàyyi Guy Marius Sagna. ah, ah oui dañ ko war a bàyyi. maanaam mm. du kaso. Mm-hmm. alors ak chef courant bi ñu ndax yow am numéro bi. ah mais ku wax Guy Marius Sagna rek wax chef courant. waroon ñu waroon ñu jàpp ko. am na beneen débat bu jub troisième mandat. waaw di waat ay coow. waaw xaar yow. mais Macky Sall est très malin ah. Macky Sall léegi divertir na Sénégal yi orange ba yóbbu si beneen débat. Ah. débat bi dëgg xam mooy lan. Cour des comptes daa génne rapport. na si wax mais ñun dañoo teel a yóbbu dañoo dañuy teel a këf quoi. Hmm. mais comme xam nañu Cour des comptes ay gars yu kese épinglé. ba mu gënee affaire troisième mandat pour waaw diversion la pour gars yi pour gars yi mais mais dafa yomb quoi dafa yomb. gis nañ aussi ay xalifa ay gars xalifa yu bëri anti marché bi ah. gis nañ aussi ay gars xalifa yu bëri anti marché bi ah. waaw mais c'est normal ñun lépp loo xam ne dafay xañ nit àqam ak yelleefam ñu ngi koy xeex. ñu daal di desandi ba tey ci coowal mandat boobu ak ñàngatu kii di Thierno Bocoum moom mu daal di nag gis ne képp koo xam ne daal ah, yaa ngi xeexal askan wi wàllu injustice daanaka ah, weesu woo ko mën na la dal saa su nekk mu jàpp ne wàllum ñetteelu mandat bi moom loolu ah, responsable yi APR ñoo ko daal nak nag yëkkati te li ni mel itam duñu ko nangu moom Thierno Bocoum ba tey ak Amadou Moustapha Dieng. dañuy féliciter jeunesse sénégalais dañuy féliciter ñëpp loo xam ne ñëw nañ taxaw fii parce que noonu la ñuy xeexee ci réew acquis démocratique boo mënti gis ci réew bu mënti doon dafa am ñu jug ñuy wax naan toog leen waaye bu leen def lii bu leen def leen loolu indiwul benn acquis démocratique dañuy tenté di abuser ci pouvoir yi nii rek la mën a demee pour que ñu bàyyi justement ci wàllu second mandat Macky bi mais dafa mel ni débat bi dafa relancé jamono ji ak ay euh, responsable nekk ci mouvance présidentielle bi pour que ne Macky war naa mën a def troisième mandat waaw loolu débat bu ñaaw la bu ruslu la bu ñaaw la bu ruslu la man dama dama am gàcce parce que nekk fii di leem-leemal naan ay constitution ay article vingt sept mais loolu yëpp waxoon nañ ko fi en deux mille onze mais ñan ñoo fi nekkoon di xeex deux mille onze ñoom si lañ bokkoon waxu ba rek président Macky Sall mais ñu fi nekk di wax rek ñëpp bokkoon nañu si combat bi pourquoi tey ñu mën a taxaw argument yi ñu dàqoon ba ñuy xeex président Wade pour mu bañ am troisième mandat ñoom ñu ñëw indi les mêmes arguments tegaat ko sur la table xanaa au moins sax nga imaginer yeneen sax mais les mêmes arguments dafa ñaaw loolu nag dañu wax ne xaw ma ndax mu ngi seen ginnaaw ou pas parce que suñu gisee tey sorti koo xam ne jege na président Macky Sall peut-être mën nañ jàpp ne nekkul si ginnaaw waaye bu loolu yëpp soxaluñu lu ñu soxal mooy su dee projet la mu nekk si kaw mu nekk si suuf mu nekk si ay biir néeg wala mu nekk ci ëtt bi ak suñ koy mën ci waxee nañ ko teg si suuf parce que duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba te duñ ko mës nangu lu ñu xeexee woon 2011 ba lu mel nii du am sañu Sénégal c'est un acquis démocratique du ñu delluwaat si loolu c'est irréversible kenn du si delluwaat te loolu c'est un combat que nous mènerons jusqu'au bout ah ñu daal di nag desandi ba tey ak marché googu nga xam ne nag amal nañ ko rond point foire ba ñëw ba Liberté 6 foofu sax ca buntu euh, camp pénal yi lu nañu ak ci tëgg ki klaxon bu ko defee kii di Guy Marius Sagna ma ñu doon sàkku libération mu daal di yéeg ne daal askan wi ñu ngi koy daal di nag jàppale ñoom nag nee ñu euh, ñetteelu mandat moom nañ koo teg ci suuf ndax xeex bi ci gën koo baral lañu ñu jëm ñoom waa ñoo lànk Amadou Moustapha Dia Guy Marius Sagna ci boppam jot naa dégg ci biir noppam yuuxoo yi klaxon yi ak coow li nga xam ne marché ri jot nañ ko amal bi ñu taxawee ci kanamu prison camp pénal fa nga xam ne fa ko denc yuuxu yi coow li mel ni tulleeg màlle di riir ci biir nopp yi libéré Guy Marius libéré bi ñu yegsee ci kanamu prison camp pénal bi yenn ci manifestants yi dañoo demoon ba seen yaram tàng jër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 Mbari Sagna fii ci ñetteeli mandat it juuxoon na ci biir marche bile manifestant yu bëri di xam ne ne ñoom de xaatuñu benn yoon bàyyi njuuti réew Macky Sall mu fiy laaj ñetteeli mandat. troisième mandat xam nga fi dañ ko fiy tey suñu gaz bi ba teree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 ñu daal di dikk ba desandi ak troisième mandat boobu euh, ñi farek nguur gi euh, ci kàddu ministre bi ñu dénk wàllu développement communautaire ak équité sociale moom àdduna ci euh, jàpp ne daal yëkkati kàddu ci ñetteelu mandat daal jotagul Mansour Faye xamle ko gannaaw nemmeeku ba mu amal ca Poroxaan ngir rek saytu juróom lu forage ba ñu déglu ko Mamadou Camara. dama ne gis nga fu ne ci liggéey la ñu mbëbët askan bi. ñu indi ci saafara. fa lañ toll ngi soogaay def benn at ci mandat bi nga xam ni ci la toll des na ñeenti at avant mandat bi di jeex euh, nañ ko bàyyi mu liggéey bu su mandat jotee waxu mandat bu jotee bu neexee yàlla daañ ko wax mais lu ñu soxal fu mu nekk nii mooy liggéeyal askan bi parce que loolu la Sénégalais yi soxla ñu nekk seen kër di ñu déglu ñooñu loolu la ñu soxla waaye ñi nekk ci rajo beeg ca lay di wax loolu kooku débat intellectuel la euh, ñu daal di wéy ak yéen ak %e président :fra Macky Sall mi ñu daal di jébal rapport :fra bi nga xam ne nag mooy bu OFNAC deux :fra mille :fra dix :fra sept wàllu déclaration :fra patrimoine :fra daal di ci nag fës bokk na ci recommandation :fra yi njiitu nag daal di %e ñu daal di koy jébal ñaar fukk %e ñett ci ay nag dossiers :fra yi nga xam ne juróomi rapport :fra d' :fra enquête daal na cay fës Seynabou bu Diakhaté [r] adduna ci ci xibaaru nag %e tubaab yi ci la ñuy daal di rek fàttali sax tontu bi si njiitu réew indi ci ñaari rapport yooyu moo xam ne nag euh, la ca war ci càmbar ak njàngat gouvernement bi dina ko daal di defal bu ko defee euh, matuwaay ñu daal di koy nag euh, jël ñu daal di dikk ci cour justice bu CEDEAO ak seen dajëb bëgg nag réew yi séq CEDEAO yëpp daal di xam cour bi waaye tam xam boo bëggee jokkoo moom wala saisir ko fan ngay daal di nag jaar cour bi nag ñu ngi yokk compétence am aju ci wàllu nag ak ak yelleefu doomu aadama bi ci des rek mooy yenn ci dogal yi réew yi dul jëfee te cour bi daal koy jël ni ñu wax mooy ñu ngi ci ay lobby ngir daal di xool ni ñuy def rek ba réew bi rek daal di koy sàmmante lu ko mooy institution bi du am sens bu ñu sukkandikoo ci kii di Béribé Ouattara mooy vice président bu cour justice bu CEDEAO ñu teewlu ko. Je conduisais une délégation qui est venue pour une mission de sensibilisation parce que la cour de justice de la CEDEAO n'est pas très bien connue dans la zone CETA elle est une institution communautaire pour les journaux et a son Norvège a bougé au Nigeria alors que la CEDEAO compte 15 États membres dont le Sénégal un des États et donc euh, les Sénégalais comme les autres ressortissants des États membres qui sont hors du Nigeria moo tax doomu dañu war a xam cours bi ba sax yeneen i yu dëkkul réewu Nigéria xam ne seen droit la waaye ñu xam itam yoon yi ñuy jaar ba daal di ak cours bi surtout que sax jamono ji cour justice bu CEDEAO am na compétence lépp lu aju ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama mu mën koo àttee looloo waral euh, at bu jot ñu daal di déplacé wu ci benn réew ngir def sensibilisation bi normalement nag cour bi décision bi nga xam ne dañ ko jël ci réew yi duñ ko appliqué loolu du mbiram waaye jamono ji ñu ngi waxtaan di def ay lobbying ci wetu état yu bari bu ko defee ñu mën jëfe dogal yi le ndax du jëriñ dara ñu jël ay dogal te du am jëf parce qu'il euh, ñu daal di nag euh, ñëw ak euh, coow li wàllu mbay mi ak secrétaire général national adjoint bu syndicat national corps gras yi ñaawlu nag autorisation ngir jiw ji ñu daal di koy nag exploité te directeur bu cabinet ministre agriculture daal di koy fësal ne ñu daal ni mel dafay nasaxal ak suuxal Sonacos ba ñuy daal di nag liggéeyee ci mbay Ndiaye ñu déglu ko Adama Ndiaye. bi campagne bi tàmbalee. ñi nga xam ne ñoom lañ doon xëjool gerte gi dañ andi woon ay façon yoo xam ne usines yi mënuñu ko woon dékku dañu génnoon wax attirer attention nguur gi ci ne il faut ñu organiser waat affaire bi léegi ci jógee ci loolu bi ñu exporté lu mat euh, ñeent téeméeri junniy tonnes donc la ñu wax ne comme exportation foofu la yemoon daaw ak at yi weesu fa lañ koy yemale ministère woote réunion acteurs yëpp ñu daje ministère ñu arrêté ne dañu arrêté exportation bi biñ ko arrêté mesure liñ ci jëkk gis comme mesure mooy usines yi commencé nañu nañ am gerte parce que suñ fi ñuy jële gerte ci Tamba ak ci Ziguinchor ak foofu ak usine Diourbel beeg yeneen usines yi camions yi ñu ngi doon ñëw malgré que melul na mu waroon mel mais ñu ngi doon ñëw mm. léegi dañ ñu dañ ne ministère directeur de cabinet au ministre daal ñoom ñoo joxe ay autorisation ñeneen lu war a toll ci juróom fanweer juróom-benn jun fanweer junniy tonne graine coke loolu boo ko xoolee juróom-benn fukki junni wala juróom-ñaar fukki junni tonne la ci graine coke pour ñu exporter waat ko loolu boo ko xoolee buñ ko bu ñu bàyyi woon usine Sonacos jënd ko dina mën a doxal usine Ziguinchor ak bu Diourbel campagne bi yëpp. léegi tey jii nii gerte googu ñu ngi ubbiwaat campagne bi xaw ma kan moo autorisé pour ñu def loolu léegi tey jii nii résultat bi mooy usines yi camions yi ñëwatul léegi suñu lieu de stock yi nekkoon ay Tamba yooyu xam ne dañ ko defoon pour mu jege ñi jaay gerte gi ndax ñu mun ko fa indi camion ya fa doon rang sax nit ñi dañu leen a corrompre ñu jógee foofu fas yéene prix proposé prix yoo xam ne Sonacos mënu ko fay malgré que Sonacos def na effort ba rapproché woon ci prix yi nekkoon ci marché bi donc aujourd'hui li xew tey mooy vraiment situation boobu ñun muñ ko comprendre ñun nag sabotage sax lañ ko jàppee parce que Sonacos ak li ci état bi daj yëpp yëpp ba pare mu war a mun a am gerte ñu def effort yi ba pare ay nit di jël décision yoo xam ne day tax Sonacos du mën a dox day dàq ay nit loolu parce que amul liggéey loolu ngi yëglu ci président république moo xam ne Sonacos daf ko mos a ñor ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo yor affaire bi loolu bu fekkee yëguñu ko tam ñu yëg ko xam ne mu ngi bëgg a yàq liggéey Sonacos ak liñ ci def yëpp Euh, dañ koy daal di nag doore ak euh, Ligue 1 douzième journée fii ci mim réew euh, samedi tey jii nag foofu ci sat njaareem NGB mooy daal di nag daje ak Njàmbur bu dee nag dimanche gi benn fan ci weeru nag mars bi GF mooy daal di daje ak Jàmbaar waaye itam Gorée ak Douane daal di nag laale SNAPS ak Dakar Sacré-Cœur ñooy daal di daje daje eh, Casa Sport Stade de Mbour itam dinañ laale di h bu jotee Alassane Djigo bu Pikine Pikine moom ak Teungueth FC ñooy daje bu dee Mbour nag foofu ci Stade Caroline Faye eh, Mbour Petite Côte ak Jaraaf ñooy daal di nag eh, daje ñu fàtte ne nag Teungueth FC moo jiitu ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay poñ Dakar Sacré-Cœur daal di ciy topp ak fukk ak juróom-ñeenti di ciy toftalu moo nekk ci ñetteelu place bi ak fukk ak juróom-ñetti poñ. synapse nag ñoo mujj moom ak génération foot ñu daal di nag desandi ba tey ak lii di nag Ligue 2 bi ba tey ci mim réew ak douzième journée bi ba tey ci samedi gi nag Stade Lat Dior Thiès FC ak Africa Promo ñooy daje Amitié FC ak GFC eh, Stade Massène Sène foofee nag J Fatick ak Jamono eh, ñooy daal di laale bu dee Stade Lamine Gueye Sonacos ak Kër Madior Stade Amadou Barry foofu Izo ak Linguère ñooy daje dimanche yi lañ koy jeexal diggante euh, renaissance ak port altine ji nag ñu daal di koy mottali ak euh, Demba Diop ak euh, Duc bu dee bitim réew rek lii la yëf yi daal di nag tëddee classico bi nga xam ne nag Real de Madrid war na dalal ci dimanche gi ci vingt sixième journée bi équipe boobu di Barça mu nekk nag ab classico boo xam ne bu ñuy xaar la jamono jile ñu fàttali ne nag match yi nii la daal di nag ci. samedi gi rek wala dimanche gi FC Séville ak euh, Osasuna ñooy daal di daje Atlético Bilbao ak euh, Villarreal Espagnol Atlético Madrid Real de Real Mallorca ak euh, Getafe daal di daje Getafe Real Madrid ak FC Barcelone mooy nag classico bi Barcelone nag ñu fàttali ne moo jiitu ak juróom fukk ak juróomi poñ Real daal di topp ci ginnaawam ak juróom fukk ak ñetti poñ kon ñaari poñ la ko daal rawe ñu jeexale ko rek ak Euh, Angleterre foofee nga xam ne nag ci samedi gi itam euh, match daal dina fay rek euh, am bu gante Newcastle ak Burnley West Ham ak Southampton équipe bi nga xam ne nag mooy City ak Arsenal dañoo daal di daq seeni match nag daf ko reporté dimanche gi ñu jeexal ko diggante Everton ak Manchester United Tottenham ak Wolverhampton ñu kii jiiti ci classement bi nag mooy Liverpool ak juróom-ñaar fukki poñ ak juróom-ñeent Manchester City topp ci ak juróom fukk euh, juróom ñaar ci ay euh, poñ euh, fii la ñëw ak yéen ci xibaaru tàggat yaram Adama Ndione Euh, Sud Matin ñaari pàcc yi fii daal di nag euh, jeex ñu diggati leen daje xibaar yi ci yaatal midi ak benn waxtu lay doon 9h xibaar yi ci tënk buñ ca noppee seen émission loo ci xam euh, Moussa Thiam ngeen di àndal alaaji Moussa Thiam jaajëfal bu baax a baax Pape Laye Dieye mi ñu àndaloon ci fajar géeg léegi mbokki xarit yi ñuy déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm.